di sant euh, yalla mi ñu may ñu mën a fekkee bés bi fii tey euh, ñu tuddee ko Setal Diobass Setal Diobass nekk euh, initiative boo xam ne tontu la ci woote bi président Macky Sall woote ci cleaning day ci réew mi maanaam ñu fexe ba ci gox-goxaat yi ñu mën ko setal ndax set dafa bokk jikko yo xamné mo ngank développement réew ndax développement réew doomu aadama yi ñokoy koy saytu te doomu aadama pour mëna am développement ci anam yu mucc ayib baxna mo ganna yo set ci dëkkuwaay yi set ci bërëbu liggéeykaay yi set également ci xel mi kon loolu waral tey ngeen gis ne man ànd naa ak sous-préfet bu commune Noto And ak chef de village yi ak surtout les étudiants qui sont mobilisés massivement and ak population yi jigéen yi pour ñu sétal village bu nek sétal yoon yi mais également sétal bëreub ya nga xam mom moom la nit ñi di fexlo li nak dañuy lancer un appel pour képp ko xamné ya nek fi ci commune bi mais également ci biir réew pour que li nek lo xamné mu sax dak ndax développement réew ci li la wéru développement réew ci li lay amé résultat yo xamné ne résultat yu baax la kon ma ngi gërëm bu baax a baax les autorités administratives yi nga xamné ne accompagner ci suba ba légui les services de défense et de sécurité mais surtout les chefs de village nga xamné ñom ñoom mobilisé wu ñom nek ci terrain bi and ci nek ci ak xale yi nekk ci ak jigéen ñi kon ndam bu rëy la ñu ngi gërëm di leen sant bu baax a baax.